yi itam tey euh, fego ak euh, Adama euh, Fall mu bokk ci APR kenn dootu ko présenté désormais muy ànd ak ñun ci jotaay bi Adama maa ngi lay nuyu di la ziar di la dalal. te dinaa la ganale itam. waaw soo ma ganalee de mu gën a neex nag fa soxna Fatou. <laughs> Uh-huh. xam nga lu tax. Mm. maa ngi lay nuyu di la sant di wax askanu Sénégal ne leen. Mm. lu mu bëgg da koy am. Ah parce que aussi euh, voilà et je parle en koy daal euh. ma c'est un plaisir ma ñëw ci Télé Sénégal mm-hmm. euh, le nom est énorme mm-hmm. Télé Sénégal Sénégal rek nag moo ñu ñor waaw Télé Sénégal mooy askanu Sénégal moo tax ngeen di dox pays bi moo tax ngeen taxaw mm-hmm. ñëw ci émission bu ñu naan Sénégal Matin Sénégal Matin Sénégal dafa bëri ay ruq-ruq dafa bëri ay bagages ah donc c'est un plaisir ma ñëw euh, partager plateau bi ak ah. euh, la très chère Fatou mm. euh, di wax ni dama leen doon suivre moo tax sax ma xawoon ragal a ñëw mm. parce que je vous de loin moo tax soo daan insister ma naan la non non <laughs> mais je pense que il faut que je prenne mon courage en deux pour mën a toog man sonalu ma gaay su ma la waxee leen di nga ko wax soxna Fatou eh. sa muraay bi elle est trompeuse de. déet waay. Ah, man nag vraiment nag tegu ko ma fi kenn mu. yee ñiy toog fii. Ah. sax na da ngay tooj. non je suis je suis très sérieux di nuyu du wax mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay. di leen wax ni la bonne heure. Hmm. c'est avec Adama Fall. très bien alors euh, c'est ça la bonne heure euh, jot na kon Sénégal matin di door Khalil euh, Ka yow itam ñuy am mbégte mu rëy di ci feggoo ak yow. waaw di la jaajëfal Fatou di toujours plaisir partage yow plateau bi. Mm-hmm. Eh, di la nuyu eh, di nuyu également suñu eh, naataango suñu gan Amadou Adama Fall. Mm-hmm. ñu koy suivre partout ci à travers li nga xamante ni moom moo di suñu ay naataango yu nekk ci yeneen média mm-hmm. pertinence ñu fas yéene janoog moom rek waxtaanee Sénégal. très bien Sénégal la ñuy waxtaanee Sénégal nag tey aadama dañoo yeewoo xibaar boo xam ni xëy na yow interpellé na la personnellement ndax rakku première Adama Faye sa turandoo euh, dañoo wax ne dañ ko teg loxo euh, pour que escroquerie foncière euh, mu mel ni lu xaw a sax ak kaawu dooro Gueye mi nga xam ne moom bañ ko jàppee njiitu réew mi la tudd est-ce que tey mënuñu ne mbóot yee tàmbalee sulleeku. ban mbóot noo dundee mbir moom. mbóot tàmbalewul suleeku hmm. damay wax askanu Sénégal ne que la famille de la première dame depuis très très longtemps nit ñaa ngi def dabal kabal contre la famille. kuy def kabal pour atteindre leen certains. mais malheureusement mënuñu leen jot aujourd'hui dañoo daanu ci affaire bi rek tënk ci wax ci parce que dafa am nañ ma baalan ah, dafa am une presque boo xamante ni dañu bëgg ñu ñu laal la famille de la première dame. Hmm. parce que affaire bi nu mu gën demee démb dafa gaaw parce que l'affaire de la plante bi nga xam ni benn nit moo ko porté plainte Adama fay hmm. ñetti nit ñoo ko wër. ba ñu demee section de recherche. ñetti nit ñoo nekkoon autour de la table ba ñeent. plus des agents de sécurité. ba ñu toogee chef de de recherche la information bi fuité dem à la presse ñu la il est à la section de recherche nangam sangam lan lañ ci jublu mooy benn. deuxième chose avant ñuy def garde à vue bi. Hmm. la ñu fuité information bi ne def nañ ko garde à vue. troisième chose ba ñu lever garde à vue bi yëguñu ko parce que c'était à 23 heures. ñu continuer ci dynamique boobu pour entacher l'honorabilité de la famille de la première dame ñi koy def nag c'est des gens encagoulés cachés yoo xamante ni ils sont au du pouvoir loolu laa jàpp. Ah, kon yow loolu loolu laa jàpp. parce que bëggoon nañ ko mënuñu ci jot soo gisee le cas de Doro ils ont tout fait pour citer le, le du président de la République Macky Sall fa dara tey on cite le nom de la première dame parce qu'on dit Adama Faye le petit frère de la première pourquoi on veut citer la famille maintenant cette affaire ma wax askanu Sénégal ne leen mu demee aadama fay moo yor terrain jaay ko nit nit ki yëkkati une moitié de l'argent fay Adama fay desel ko toog ba ab diir mu désister ne day dell ñëw seet si Adama Faye ne ko dama lay delloo terrain bi nga delloo ma suma xaalis delloo terrain bi Adama Faye pour dire pour dire aux Sénégalais ñaari nit ñi ñoo bokk benn koñ ñoo bokk benn koñ Ouest Foire lañ dëkk ak ki ki ko porté plainte ñoo bokk benn koñ donc waa ji ba mu désister delloo terrain bi parce que dafa il dans dans capacité de payer le restant de la hmm. moo tax mu désister fan nga gisee vente ak désistement soo désisté kay l'argent encaissé pour nga mën ko jotaat day du gaaw. da ngay waxtaan da ngay waxtaan pour jotaat ci. l'affaire date de trois ans hein trois ans tey lañ koy doog a waxaat au lieu de porter plainte au niveau de la gendarmerie de la Foire ah, parce que c'est une affaire civile mu dem section de recherche section de recherche ñun xam nañ ñu ñu fay yóbbu waaw wala déet yéen journaliste xam nga ñu ñuy convoqué section de recherche ak lan lañ ci jublu. liñ ci jublu lépp c'était pour entacher l'honorabilité de la famille de la première dame. à quelle fin. à quelle du tudd ju président Macky Sall mooy première dame ak jëkkëram ak njabootam dañ nekk di doon salfaañe suufu réew. mais loolu wax nañ ko ko. waaw moom laa la wax avant que ñuy tudd Adama loolu laa la wax. c'est-à-dire objectif boobu objectif objectif objectif boobu laa laa laa ci gis man. mën naa juum nag mais objectif boobu laa ci gis maintenant ba ñu demee aadama Faye à poids à payer cinquante pour cent de l' argent bi mu demee waa bi mu bi mu devoir woon waa ji loolu tax ñu bàyyi ko ñibbi parce que est une affaire civile. ah ñu ne mi ngi garde à vue këram la fanaan te yow mi tegal naa la loo xam ne sañ ma ko teg ci tele bi mais këram la fanaan que këram la fanaan jàmb nee na ñooy. mais lu tax mënu ko war a def avant muy egg avant. déedéet du démb la fay déedéet du démb la fay de déedéet du démb la fay de. déedéet du démb la fay 50 pour cent de l' argent déedéet fay na ko avant waa ji moo jaar ci relation amicale bi mu am ak ñenn ñi au niveau de la section de recherche nañ ma baal pour convoquer lu Adama Faye au niveau ñoom ñaar nee naa ñoo bokk koñ. waa ji nu mu def ba désister Adama Faye accepté désistement bi ne da koy rembourser xaalisam mënoon na ko def noonu ba nangam parce que Adama Faye su ko neexoon mu ne du ma désister accepté désistement bi waaw wala déet ne ko da nga may da may fay xaalis bi nga ma bi nga ma desel mais Adama ne l'a pas fait tooñ nit ba pare jiitu ko ci gendarmerie ba parce que waa ji moo tooñ Adama fay ji léegi nag jiitu Adama Faye ci gendarmerie ba. pour entacher le deru doomu Adama mais dañuy sonal seen bopp rek dañuy sonal seen bopp. ma wax askanu Sénégal ne leen pareeguñu sur la ci ci famille Marème Faye pareeguñ ci. parce que dañu nekk ci fayantoo. mais bien sûr. ban intérêt lañ ci am loolu. liñ ci amul mooy fayantoo rek pare parce que ils des ententes dafa dafa am ay croyances lu ñu am par rapport à cette famille là dafa am croyance bu ñu am. est-ce que tam du am na fuñ ko teg parce que. gis nañu fi coowal suuf président demal boppam ba Mbourkat la mu fa gis yëpp. ak domaine public maritime bii nga xam ne ñu ngi koy lijjanti sotteegul. dama ne parce tam am nañ ci lu wóor luñ teg seen dama ne teguñu seen loxo dara. suñu amoon fit yow foo teg loolu soxna si suñu amoon fit. Hmm. suñu amoon fit duñ ko yemale deux mille vingt ba deux mille vingt quatre waaw lu tax ñeenti at yi lan moo xew. 2012 ah, xëy na ci seen nguur la yëf yi gën waaw de suñu nguur 2012 la tàmbali lan moo xew 2012 ba 2020 ci suufu senegal peut-être du samay wax bi peut-être premier leen woon ay yoon du samay déedéet du samay wax loolu tam du samay wax suñ ko yóbboon 2007 suñu président de la république bii kon du am terrain ngi ko am en 2007. Diomaye waaw suñ ko yóbboon ko am 2017 2017 la am terrain foofu. suñ ko yóbbu woon woon ah, parce que c'est des inspecteurs impôts et